aca salaam gars yi en tout droit jaar nañ leen bëggee nañ leen waaw di leen wax namm nañ leen trop fans yeeg am si jàmm yeeg téléspectateurs yeeg ñëpp namm nañ leen euh, vraiment euh, ñu ngi leen di baalu àq ci julli bi yi nga xamante ne si lañ génn nii ñu ngi baal ñëpp di leen baalu euh, j'espère que yéen ngi ci jàmm bu baax a baax yal nañu yàlla boole jégal ñun ñëpp ñu tewee ko ay déwén yu bëri macha allah. acca ñoo ngi siyaar ñëpp di bëggee ñëpp waaw gars yi ñu ñëw rek tey ci benn vidéo ba nga xamante ne ndeysaan vidéo bu bëri polémique la waaw parce que am na fi ñaari mbër yoo xamante ne eh, dañ leen déglu ku ci nekk ci ñoom nee na daan na moromam quatre nee nañ six fois lañ bëri ñaari mbër yi yëpp ku ci nekk nee na six fois la bëri ak moroomam daan daan moroomam quatre moromam ki daan ko ñaar muy ñaari mbër yi nga xamante ne moom moo di diggante arobase bu mbulum ak buuju bu ndaayaan bi ñu laajtee arobase bu mbulum dafa ne euh, no avant ñuy laaj arobase parce que buuju moom moo njëkk a génn ci benn interview ne daan na arobase bu mbulum quatre fois arobase bu mbulum daan ko ñaar ci biir loolu arobase bu mbulum def na benn vidéo weddi loolu ba mu set wecc arobase leeralal nañu nee nañu moom daan na buuju quatre fois buuju daan ko ñaar arobase nee na fi mu daan buuju moom moo di premier jël bi mu daan buuju bu ndaayaan ko daanee fi nga xamante ne moom moo di njongoon njàkk deuxième jël bi mu ko daan mu ngi ko ko daanee fi nga xamante ne moom moo di Sadioga troisième jël bi bu ko arobase daan arobase nee na mu ngi ko ko daanee fi nga xamante ne moom moo di Kër Layin demi-finale ñu dajewaat foofu encore ci même village bi finale Arobase daanaat ko kon ce qui fait ne quatre jël moo nekk noonu yaa ngi dégg Arobase euh, Buju Ndaayaan daan na ko fi nga xamante ne moom moo di Santang Ba Santang Ba xaw ma Ndumuj ñaari dëkk yooyu daal benn ci la. Euh, buuju bu ndaayaan daan na ko foofu arobase daan ko tamit fi nga xamante ne moom moo di bambugaar Malick ñaari jël yooyu moom gis naa ne buuju bu ndaayaan daan na ko leer na man naññ mais ci biir commentaire yi am nañ euh, amateur yoo xamante ne nee nañu arobase buuju daan na ko ci drapeau chef de l'état su ma juumul 2018 la ñu wax xaw ma je pense. am na ku waxaat ne arobase bu mbulum buuju bu ndaayaan daan na ko fi nga xamante ne moom moo di Fatick léegi nag ñaari mbër yi mun nañu juum amateurs yi aussi mun nañu jum parce que nit nit la rekk doomu aadama bu dul juum yàlla sàkku ko léegi nag ci biir loolu noonu damay ñaan képp koo xamante ne am nga ci lu la leer rekk nga bindal ñu ko ci komanteer yi ñu ngi leen di ñaan loolu faruñu ak benn mbër nag mais dañoo bëgg am lu leer rek amateur yi tamit am lu leer incha allah aca gaay rang muy abonné abonné leen ci mbulum TV bés kolos lu ñu dugal da ngeen di bokk ci ñi ko njëkk a jot vidéo bi nag dañuy profité woon nii di ko def rek parce que boo xoolee ñu ngi chantier nii sax ci chantier lañ toll ni def vidéo boobu noonu aca gaay rang muy gaaw wala rang muy abonné tout droit doomu ñoom baatu baa ngi nii ragalul loolu